di rappeler numéro bi 77 634 06 68 ñu ñëw tey ci koo xam ni kii gis naa ne mbiram mi ngi bëgg a dem dayo ma jàppoon rek euh, luy passager luy gaaw lay doon gaaw a jeex gaaw a dem waaye Sénégal ñoom ñoo mën a starisé ay nit saxal leen ay dunq ki laaf ba ñu ne fër naaw man ñu mel noonu duma leen déglu damay fel feltoog seeni vidéo walla seeni image li may booleek ñoom mooy ñu partagé ma ko ma gis ca lu ma war a wax lu ñor fanaa njaase la tudd ñu ngi wax maître njaase léegi dugal nañ ci yeneen kon il fait son petit bonhomme de chemin waaye yàlla konte mu xamoon fi muy teg tànkam yàlla konte mu xamoon yoon wi muy jaar li tax ma wax ci démb rek dama dégg nag muy wax naan Muhammad ibn Abdullahi ak Muhammad Rasulullahi bokkuñu nga xam ni xeeti njaxasaan yi lañuy jàpp di ko dugal ci bopp gune yi ay courant religieux lañ koy tudde ñoom te ma jàpp ne satanique la gën a jege li ma koy jëkk a wax mooy lislaam daal ki ma yaakaar ne sax ay la yëwan wër na caa mën a wax ak kustóot mooy ki nga xam ni kii dafa nekk ci islaam orthodoxe mooy li nga xam ne lii moom la yonent bi indi teg ko ci suñu loxo alxuraan addu ci ay waxi yonent bi addu ci kooku moom su doon wax ci lislaam sax ñu ne ay ca bismillaay waaye koo xam ne kii yow jàppuloo ne war ngaa julli jàppuloo ne war ngaa woor jàppoo ne màkk sa farata la jàppuloo ne jaxe zakat sa farata la yow daal wax rek ngay nekk ngàbb sa kurus di ñoddi kooku dangaa waroon bu ñuy wax ci waxi lislaam walla ñu laaj la nga téye sa njàmbur rawatina nag ba nga xamee ni buñ la joxoon texte arabe mënoo koo liir couramment buñ la joxoon texte sub arabe benn benn page ñu bindal la ci soo doon bind ci arab yaakaar naa nit mbind ma du gaaw kon ku mel noonu dafa war a régler gis naa ko nag muy philosophe di spéculer loolu tubaab di wax ay élucubration jël xel mi rek sànni ci biir asamaan si diine du xel du gis-gis su fekkee ne nag nit ñi ñoom seen xel yi manqué na dese na bañ nañoo jàng xam seen diine xam àddina ba nga mën leen a wax yow moomu luy dugg ci seen bopp yi xanaa moos nga war a yem ci politik ak sa xëy na social waaye waxi lislaam su fekkee ne daal dangaa jàpp ne toll nga foo war a mën a nekk référence ba di am ñu ñooy ñooy joxoñ naan defuñu seen liggéey li jaarul yoon danga koy teg ci lu dëgër li ma lay conseiller daal mooy nga delluwaat jàngi dëgg la karaw gaa ngi tàmbalee weex waaye amaat nga temps dem jàngi gëstu gëstu domaine boobu nga nekk noonu di ko développer léeg-léeg di dugg ci ésotérique lañ koy wax waxi baatin ay xalaat yu xóot danaa la ci suggérer di ko suggérer it ñiy déglu njaase ay téere yii ñii di wax maa gën a tuuti ci ñi ci gëstu te li ma ci gëstu ëpp na téeméeri téere téeméer dama leen ci wan tuuti rek bi maître Eckhart la ñaari téere la ñu tudde ko les sermons Saint-Augustin ñetti volume la benn bi laa gisul la cité de Dieu Badiru Zaman al-Hamdani le livre des vagabonds le mythe de la liberté Chogyam Trungpa l'islam en question ki Tariq Ramadan ak Alain Grèche ñoo ko bokkoon co-édité ko Philosophie comprendre l'islam Edward Hall au-delà de la culture Imam Ghazali ñëpp xam nañ ko temps et prière Saint Augustin bi gis naa ko deuxième volume bi ma réeroon léegi moom laa gis so Confucius ci borom xalaat yu xóot yu yàgg yi la bokk l'appel à la rectitude Abu Nuwas le vin le vent et la vie la dimension cachée ba tey Edouard Hall Hussein Mansour al-Hallaj defe naa kooku siiw na ci waxi ésotérique Jalaluddin Rumi la religion de l'amour Francis Jinson la foi d'un incroyant Paul Wadlazik la réalité de la réalité Geneviève Geneviève Droz moom xam ngeen ko les les mythes platoniciens Ibn Arabi ñëwaat na le voyage sans retour Kalabadi kii moom ci soufi yi gën a yàgg la bokk moom tam traité de soufisme les maîtres et les étapes Ibn Khaldoum xam ngeen ko la voie et la loi Ibn Arabi la profession de foi Djalaluddin Rumi, le livre du dedans. Jean-Claude gi parale des anciens. Alain Badiou ba tey la la, la tétralogie euh, d'Ahmed. Rousbehan moom itam xam ngeen ko l'ennuagement du cœur. ba tey Rumi et le soufisme qui Eva de de Vitray de Meyerovitch moo ko bind. Jules Kepel les, ba les banlieues de l'islam Georges Bernanos bii téere gis ngeen ko ni mu màgg te c'était un livre de chevet dama ko liir di ko liiraat les prédestinés la tudd évangile apocryphe am na yu am solo yu ci nekk yoo xam ni ku bëgg xam yi may wax bii téere xamuñu koy auteur auteuram am mook le nuage d'inconnaissance bi le nuage d'inconnaissance ñaari téere ngi nii yoo xam ni ku leen liir yii xale yi di jàpp di ko jéem a dugal ci bopp bi ñoo xam ni ñoom ñi ko ciy dugal xamuñu ko mi ngi ci ba tey Saint Ignace de Loyola exercice spirituel Jean Ziegler les vivants et la mort Chogyam Trungpa méditation et action Jean Teilhard de Chardin le milieu divin ñi nga nee ma jug su ma fi toogoon di ko lim du jeex te ngeen jéggal ñu wallahi du ak ngistal wallahi ak ngistal bëggoon rek ngeen xam ni yëf yi nag du caageenu dangay jog jóg salaamaaleykum maaleykum salaam jàngoo gëstuwoo wëruloo demoo fenn ñun lu ëpp fanweeri at dañ koy gëstu fanwe fukki at yi mat na ci arab ak ci français ak ci yeneeni lang di dem di toog ak ay boroom xam-xam ci loolu li may wax ñoom ñi ngi may dégg nii bind sax def naa ko ci bind bind du jeex du xaaj kon modestie à part dafa am loo xam ni du seen domaine du seen domaine moo tax li ngeen ciy wax ngeen di réeral nit ñi parce que da ngeen a sànku ba pare il faut que nag ngeen yewwu yéen waaye fexe ba seeni doom bañ a tàbbi ci lii lii ma leen wax nag titre yi yëpp bu ci ne ku ko soxla boo ma woowee sama téléphone ma wax la da ngeen koy commandé rek far yu bari am nañ ko fii soo ko amul nga commandé ko matul vingt 24 heures mu agsi sa kër surtout ñu nekk bitim réew kon jéem a xam sa diine xam yu xóot xam yi tell xam yi fés xam yi xaw a làqatu loolu dafa am solo mooy tax nga yeewu ba façon yii bu dikkee du la yóbbu du yóbbu sa njaboot njaase daal maa ngi koy conseiller conseil yii mooy na gën a moytu lu jëm ci lislaam moom mu ciy wax ndax nag moom d'office moom moo génnee boppam lislaam daal maa ko wax répété ko te duma ci tàyyi dama ne lislaam daal yonent bi yàlla yónni woon ci ñun moo ko wax nee na juróom lañ ko lañ ko fond juróom yooyu soo taxawee ne doo def ñeenti yow yaa génnee sa bopp kon yow lu ñuy wax lu jëm ci lislaam waratoo cee bokk demal nag nga filosofe di dóor say kii ak di lëndëmal ak yooyu kooku sa affaire la waaye nag nga dimbali ñu rek lu jëm ci waxi lislaam ay farata bi feeñ naag farata amul dégg nga Mohammed Ibn Abdullahi ak Mohammed Rasulullah yooyu yëpp kenn laaju la ko wax dëgg yàlla ëppoo nit ñi xam-xam gënoo leen a réyum xel te ëppoo leen fulla ci réew mi ko defee nag ñu yemale kàddu yi fii ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.